asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool tey jile li ñu gën a waxtaane mooy ubbiteel lekkool yi tey jii di alxamis fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ak it ndam bi nga xam ne moom la suñu réew am ci kaw Guinée Bissau ñu door ko ak waa Sud Quotidien di waxtaanee dellu bi nga xam ne moom la ndongo yeeg jàngalekat yi nar a dellu ci lekkool yi tey jile bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe sit Communication mbiri dana am ci jamono joo xam ne mbas mi mi ci suñu réew ñeenti millions yi élèves ñu ngi leen di xaar ñi leen nar a jàngal nag toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari junni ndongo yi di dellu ci classe nag ginnaaw gi nga xam ne toogoon nañu ab diir ndax mbas mi mbas mi nga xam ne mu ngi fi ba tey suñu naataangoo yi faree ci avenue baa di nga xamal ne mbas moomu lee tax gouvernement bi jël ay mesures ngir bile dellu dellute ci lekkool yi mën a yemb wante jéego yiñ ci war a amal bëri na lool dendente bi nag moom du yomb dara ndax table banc yi seen bopp ñoo ñàq si classe yi am na it ay waajuru ndongo yoo xam ne fi mu toll nii l'école privée yi ñu ngi leen di def lu leen neex ci seen kaw ndodd quotidien laas it deltu si classe it ci alxamis bi rawatina ci jamono joo xam ne mbas mi ngi ci suñu réew nag soxol na ko lool jàngalekat yi ñoom ñu ngi artu di wax ne daal bu ñu moyul mbir yi du sedd lool Cheikh Mbow directeur exécutif bu ko si def di xamle ne bu dee nguur gi def na jàngat ba war ci ñi nga xam ne ñoo doon def l'examen ren jëlee deltuwaatoon ci classe yi ñàqul mën nañ caa génn ci beneen wàll ba nag ki jiite kuréel bi ëmb waajuri ndongo yi ak étudiants yi ci Sénégal di Abdoulaye Fane ne daal nguur gi li mu war a def mooy dàbbaliwaat dispositif ministère éducation nationale moom di dalal xel yi dina ñëpp ñi nga xam ne mbir mi soxal na leen ñoo ci war a jël seen responsabilité l'enquête jagleel mbir mi ab xët yaatoo yaatu rawatina nag ci wàllu mbas mi la di covid 19 protocole bu yees bi teg nañ ko wante nag lenn moom wóor na suñu naataangoo yi dandante bi moom jëmmal ko du yomb dara ci jamono jooju jàngalekat yi ñoom di dellu si seeni revendication dine bu ñu moyul daal année scolaire bi ñu jëm danañ def li ñuy duppee yëngu yëngal Le Soleil it li ni mel soxal ko lool fi mu toll nii nguur gi jël na luy tollook ñaari junni yu toftalu juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay jàngalekat yu yees ngir ñàkk jàngalekat yi nga xam ne moom lañ doon jooytu mën a wàññeeku bu baax a baax waa Soleil di ñu xamal ne ndongo yi waajur yi fi mu toll nii daal seen bopp moo tëju ndax frais de scolarité yi ak inscription yi nga xam ne moom la leen lekkool privée yi di laaj ñu des si loolu le ak maire bu Géejawaay di Aliou Sall ci biir lii quotidien mu leen di xamal ne war nañu moytu daal ñu jàngal suñu ndongo yi def ci ñoom li war te bés bu ñu màggee nag dem bitim réew ñooñu di leen jëfandikoo Aliou sàll dina jot na nag science ñu gën ko ñoŋal mu dénk ko waa lii quotidien tribune moom waxtaane wàll politique ak Macky sàll bi nga xam ne dafa nërmeel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci wàllu politique ñenn ñi mu def leen ab néew ci wàllu politique ñetta des moom duñu génn ci langue politique bi suñu naataangoo yi ne di nga xamal ne lii yëm nag Macky Sall moo ko tey ndax dafa bëgg moom rek muy bum di bum mi moo tax it daal fexe na ci lépp loo xam ne dafa jëm ci kan moo ko nar a wuutu moom kenn du ko waxtaane ci ñu koy jàppale ndax bu dul loolu rek mu saf la sàpp ñu des ba tey ci wàllu politique ak waa direct news bi waxtaanee dugg bi nga xam ne moom la yenn ci kilifa politique yi dugg jege si loolu ñi nga xam ne ñoo yore réew mi ndax militant yi dinañ leen ci topp mooy laaj bi nga xam ne moom la suñu naataangoo yi samp am ñi jiite parti politique yi nag du lu ñu wax rek militant yi ne gonga ñu wax ci wàllu mbëkk mi ak waa réew mi di ñu xamal ne mbir yi mi ngi gën a takarnaase luy tollook ñaari téeméeri doomi aadama lañ teg loxo ñenn ñi di ay jigéen yoo xam ne dañoo wonnu lor bokk na si it ay tuuti tànk suñu naataango yi dellu si ci ñàngat bi ñu war a am ginnaaw ni duudu nga xam ne fukki at ak ñeent rek la am ñàkkee bakkanam si géej gi ñu des si géej gi ak mbëkk mi ba tey ak waa Vox Populi bi dellu si ci bilangu weer wi nga xam ne moom la police génnee jëmale ci liggéey gi ma amal ci wàllu woowule junni doomi aadama ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar la ñu teg loxo teg na ñit loxo ñoo xam ne ñoom ñooy yóbbu ndaw yi ci biti réew ñu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent loolu yëpp nag mi ngi amee ci weeru octobre bi ñu génn ñooñu nga xam ne dañ doon dem fële ci Espagne nag police leen teg loxo ci Soumbédioune Bargny Rufisque Mbour ak Ndar Géej libération ñu waxtaanee li nga xam ne moo am fële ci restaurant bi ñu duppee Relais Sportif ab tiitaange fa amoon benn waaye daal moo woo ki nga xam ne moom lañ dénk boobule restaurant di ko xamal ne ci reer bi nga xam ne moom lañ fa nar a amal guddi daal dana fa ñëw teg ab bomb lii daal la wax soxna si dinaa fa indi ab bomb ndax geer gee door ci diggante Macron ak Sénégal ci mujjanteel ga nag mujj nañ teg loxo Ibrahima Dianka ñu ngi ko teg loxo fële ca Wakaam yóbbu ko ci kaso bi ginnaaw gi tegee ci ndoddam terrorisme wàllu tàggat yaram dañu koy door ak waa SAD bi dellu si si jongante bi amoon démb ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau Sénégal door ñooñu le ci ñaari bal ci dara seen bokk ci CAN atum 2022 daal soreetul dara mu dellu si si jéego yu am solo yi nga xam ne moom la ci mbéndi Koulibaly ak maane amal démb fës ci lool jongante bi soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jëlee ñu door ko ak Sud Quotidien bi xam le ne Lions yi daal ñoo dóor jurtu si laa sit di waxtaane wàll wi di xamal ne gaynde yi donte sax ñoom ñoo am ndam daal wante daal bi leen ndam taxu koo fës lonket ñoom it daal ne gaynde yi fi ñu teg seen tànk daal mooy li gën li ni melit Le Soleil xalaat ñu jeexale koog waa sunu lomb bi dellu si ci jàmmarloo bi nar am ci diggante Gaston Luc Paf ak Thialis yàgg nañu artu di xamle ne làmb ji ci atum 2020 jàpp 2021 daal na mu waroon mel melu ko li ko waral mooy koor gi tabaski bi ak it nawet bi ñoom li leen wóor ba wóor ne daal fi mu toll nii ngir amal combat yi le jëmale ci Modou Lo Ama Balla Gaye 2 Bombardier Siteu ak Papa Sow loolu le dina tax ba promoteur yi daal jàmmarloo bu baax a baax ngir mën a tëgg yooyu le combat lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm bonjour le retour dans les classes des élèves et enseignants ce 12 novembre et la victoire du Sénégal sur la Guinée-Bissau tels sont les sujets phares relayés par la presse du jour rentrée des classes 2020-2021 la grande épreuve c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien le quotidien du groupe Sud Communication indique que cette rentrée se fait sur fond de Covid-19 et que 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants sont de retour Nous y sommes. Ce jour novembre, les élèves regagnent les classes. Ce après une longue période d'interruption des cours due à la pandémie de Covid-19 qui n'a pas encore disparu. Le confrère de l'avenue Bourguiba renseigne que dans ce contexte, le gouvernement a pris des mesures pour permettre une reprise sereine et sécuriser des cours pour les élèves et enseignants attendus à l'école. Mais plusieurs défis sont encore à relever pour la stabilité de l'année respect de la distanciation physique une gageure face au déficit des tables-bancs. Le chantage de certaines écoles privées sur certains parents d'élèves également relevé par Sud Quotidien. L'AS titre également sur ouverture des classes dans un contexte de Covid-19. 4 millions de potages retrouvent l'école ce matin au moment où les enseignants alertent sur les germes d'une rentrée agitée, ce qui inquiète enseignants, acteurs et parents d'élèves. Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSIDEP, soutient que si les leçons de l'expérience de la reprise des candidats sont bien tirées, nous pouvons nous en sortir. Le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Ablaye Fane, déclare: "Nous demandons aux autorités de reprendre le même dispositif que l'année écoulée. Le ministère de l'Éducation nationale donne des gages et compte sur le sens de des acteurs." L'enquête à épreuve de la Covid-19. Le nouveau protocole sanitaire a été validé pour la rentrée scolaire. La distanciation sociale ne pourra pas être respectée. Les enseignants rappellent leurs revendications et menacent de perturber l'année scolaire. Rentrée des classes, l'État a recruté 2975 enseignants, informe Le Soleil, qui relève le protocole sanitaire dynamique qui est prévu au moment où les parents d'élèves sont hantés par les scolarités et les frais d'inscription dans les écoles privées. En soutenant les écoles, Le maire de Guédiawaye alerte sur la des cerveaux. Aliou Sall promeut les sciences dans Le Quotidien. Tribune parle politique avec Macky Sall qui réduit ses alliés à leur plus simple expression, un cadavre politique et coquille vide. Dans sa volonté de rester seul maître à bord, Macky n'a pas hésité à couper des têtes parmi ses alliés, tout en veillant soigneusement à ce que la question de sa succession soit érigée en sujet tabou pour la majorité présidentielle. suivre, se demande Direct News. Ces militants n'ont plus comme directeur de conscience leur mentor, souligne le confrère. Intéressons-nous à présent à l'émigration irrégulière avec Rewmi Quotidien. La folie se poursuit. 200 personnes secourues dont des femmes enceintes et des bébés en 24 heures. Rewmi Quotidien revient sur ce que nous enseigne la mort en mer du petit Doudou âgé de 14 ans. Après Rewmi Quotidien, place à Vox Populi qui s'intéresse 29 convoyeurs ont été arrêtés en octobre. En partance pour l'Espagne, ils ont été interceptés entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque, Mbour et Saint-Louis. Libération revient sur la panique au restaurant Le Relais sportif. Un individu appelle la gérante et annonce qu'il va poser une bombe lors d'un dîner spectacle. Il déclare à la gérante: annule la soirée, c'est la guerre entre Macron et le Sénégal. T'es averti. Fin de citation. Identifié et cueilli à Ouakam, été placé sous mandat de dépôt pour acte de terrorisme hier. En sport, SAT le quotidien du sport titre ce matin sur Sénégal Guinée-Bissau 2 à 0. Les Lions à une victoire de la CAN 2022. SAT relève le retour gagnant de Mendy Koulibaly et Mané. Les Lions s'offrent les durs tous, soutient Sud Quotidien, alors que l'AS est convaincu que les Lions gagnent sans convaincre. Les Lions prennent une bonne option selon l'enquête. C'est une sérieuse option pour la qualification, soutient le Soleil. Vainqueur de la Guinée-Bissau, le Sénégal a une victoire de la qualification pour la Cannes. Intime conviction de l'I quotidien. Le Sénégal bat la Guinée-Bissau en de service minimum, soutient Tribune. Terminons par Sunulombe vers la guerre des dates entre Gaston, Luc, Paf et Thialis. Sunu Lamb a sonné l'alarme pour dire qu'on va vers une saison de lutte 2020-2021 très écourtée à cause du démarrage tardif de la saison, du Ramadan, de la Korité, de la Tabaski et de l'hivernage, raison pour laquelle le confrère rappelle qu'on risque d'aller vers la guerre des dates puisque les promoteurs de la place ont monté des combats chocs à l'image de Modlo, Ama, Bombardier, Citeux et Papa Sow. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.